donc li ñuy wax lu leer la Abdou Karim Fofana moom la du góor du jigéen moom moo jiite lii du kenn ku dul moom ak ñi mu àndal nekk na fi 18 mois dàq nañ ko na gore li mu mënoon def na ko bu mënoon dara président dina ko tenir ba léegi kër yu rasé yi mi ngi leen fay importer di leen fa indi ñu suñu kër këru chef de quartier la ñu ngi fay sax di fa créer ay tur tur sama sœur ñi fay tudd li ñu ko bëgg mooy lu mu ci bañul bañuñu ko ci président de la république ñu interpellé waxuñu ko mu bokk ci coow li le sous-préfet on le respecte le ministre de l'intérieur xam nañu charisme bi xam nañu fulaak faydaam mais Abdou Karim Fofana na bàyyi yi muy def li mu bëgg du fi jàll te lu mu ci bañul bañuñu ko ci ëpp ñu ñu fit ëpp ñu ñu fayda gënuñu gënuñu ñeme fii suñu commune la waa waa waqinaan Nimzaat du moo ñuy fal waa Thiaroye du ñoo ñuy falal waa Cambérène du ñoo ñuy falal waa Gueule Tapée du ñoo ñuy falal ñun waa Fann Point Amitié ñooy fal suñu maire te on a un bon maire et on la garde kenn du ñu wax li ñuy def donc lu mu ci bañul ñu ko ci il arrête magum jëmm la xam non defuñu lenn lu dul importer ji ay nit dem jëli ay nit feneen utal leen ay certificat résidence yu fictif ñëw indi leen fii dig leen ay financement dig leen ay financement ni leen foog ñu am financement am na ñoo xam ne digal nañ leen ni dañ leen yóbbu foire dig nañ leen dañoo yóbbu du fi jàll kenn kenn li ñu leen waxoon am na ñu ko digoon Fann 2012 ba léegi ay ticket lañ leen joxoon encaissé wuñ dara donc sax li ñu leen di wax mooy gënuñu ñu bëgg suñu commune ëpp ñu ñu fulla ëpp ñu ñu fayda lu mu ci bañul bañu ñu ko ci. li monsieur le maire li mu war a def def na fa entamer procédure judiciaire bi. loolu moom la ñun en tant que population dëkk ci commune bi juddoo fi màggee fi yaroo fi ku xam fan point am jee xam na ne ñun bëgguñu mel ni benn commune te commune bu nekk bëgg na mel ni ñun te loolu bu amee Balla sàmm la donc moom ci boppam ba mu fi nekkee ministre yor fi ay ndomba tànk tegu fi benn brique tegu fi pavage ay garab yu dee la ñu ñëw saxalal soxla wuñ ko vraiment monsieur le président de la république ñu ngi lay ñaan le gars dii la le d'arrêter sinon lu ci bañul bañuñu ko On est là aujourd'hui pour dénoncer les tentatives de fraude qui sévit dans notre chère collectivité. On est là pour interpeller Monsieur le Président de la République. On est là pour interpeller Monsieur le sous-préfet. On en a marre en fin de compte. Nous sommes au regret de constater que les certificats de domicile que les gens viennent présenter au niveau de cette commission qui est juste derrière moi, hélas, est délivré dans les bureaux de l'APR. dans le siège de l'APR. Un certificat de résidence devrait être délivré par les officiers d'état civil et nous sommes au regret. Nous sommes au regret de constater que ces certificats-là sont délivrés dans les locaux du siège de l'APR et c'est aberrant. C'est quelque chose d'inédit. De, de, et voilà, on est là vraiment pour dénoncer cela. Le dossier est actuellement dans les mains de la justice parce que c'est des certificats de résidence qui sont antidatés. C'est des certificats de résidence qui, qui sont incohérents du début à la fin. Comment un monsieur qui réside à Pékin peut avoir avec lui un certificat de résidence avec une adresse du point E, avec des adresses vraiment très floues. Chez Job, qu'est-ce que ça veut dire Chez Job, c'est une adresse au point E. On a besoin que vraiment les autorités compétentes puissent prendre cette chose-là en main. parce que ça risque de dégénérer. On ne va pas se laisser faire. Ceux-là qui n'habitent pas dans la commune n'ont pas le droit de participer au choix des populations. On a un excellent maire qui travaille. Faudrait que ces gens-là restent chez eux. Ils n'ont qu'à aller voter là où ils habitent. Nous, on habite dans ce quartier. Nous, on habite dans cette commune. Et voilà, on va pas se laisser faire, je vous le garantis. Monsieur le Président de la République, on on vous la garantit que qu'il n'y en aura parce que lim ñu jaral dinañu ko jaral